ci ben kaas sorti ci ndox bu mu dig nga baye dugub bi mu yendoog mom ba ay côté 5 heures 6 heures nga génne dugub bi lek ko non dé ko def inshallah pendant 15 jours de nga dëgër këcc moy moytul sétan lu haram kon li njëkk ci ab julit mu wara jàng moy mu jàng li ñu tuddé at tawhid muy wétal borom bi subhanahu wa taala. gis nga pass pass dafa cher. yonent bi alayhi salaam ne amul lenn lu ñu peese ak la ilaha illallah lu dul ne dina ko daaneel. lolu moy kàttanu tawhid ana xamoni bokal day yak jëf yàlla neena na bi la in ashrakta la yahbatan amaluk wallahi muhammad bo bokkaale sa jëf yak waaw ci deug deug deug bu ngeen xalaatee jëfandikoo seeni xel ndax war ngeena nangune amna yàlla keneen ñeneen ñu fi nek ne mom yow da buñ la ko laaje khul la ashad nel man la ashad nga lay jox ben remède bo xamanteni wallahi ladhi la ilaha ghayru amul ben remède bu ko gën su fekke centre nga ni da nga commencé faible sa érection dafa tàmbale oyof maanaam li war a dëgër ci yow dëgëratul utal reenu màdd garab bi ñuy mooyee màdd reen bi boo ko amee boo amee reenu tool baax na boo ko amul jëlal reenu màdd nga ut reenu daqaar ñoom ñaar nga boole leen boo leen boolee nga def ko sa bouteille Evian def ci ndox boo ci defee ndox nga jël kudd bu ndaw ci xorom bo xamante mom lañu woyé xorom Mali moy xorom buñu iyo iyodewul nga def ko ci ngay naan kasu ataaya bo xëyee bo agné bo réré boy teud kasu ataaya bo xëyee bo agné bo réré boy teud muy 4 fois sa bu démé nga def nga bu jéxé nga defaat ba 3 jours nga soti lol defaat ko reenu mad la wax reenu mad ak reenu tol so amul reenu tol reenu mad ak reenu dakar boole loolu nga di ko naan su fekkee da nga sentir ne bagage yi dëgërut su boobaa da ngay jël dugub bu ñu bu ñu soq tuuti ngay jël boo xëyee nga def ko ci kaasu attaaya wala nga def ko ci benn kaas sotti ci ndox bu mu digg nga bàyyi dugub bi mu yendoog moom ba ay côté 5 heures 6 heures nga génne dugub bi lekk ko noonu dee ko def incha allah pendant quinze jours di nga dëgër këcc waaye moytul seetaan lu xaraam xale yi jigéen ñi dañ lay reetaan de mm-hmm. salaamaaleykum